de l'ACOS leader allié du candidat Ousmane Sonko ñoo woote woon pour waxtaan ak réew mi waxtaan bi nag tey benn ponk kese la mooy lu tukkee ci communiqué conseil constitutionnel bi ñëpp gis démb ñu dañoo rejeté candidature président Ousmane Sonko mu doon lu jaaxal sénégalais yépp ndaxte li tubaab di naan il faut pas mélanger les torchons et les serviettes moom la ñu gis yoon dafa ne booy déposer sa candidature da ngay indi quittance bu attestation confirmée am na ñoo xam ne nag dañ leen boole ci liste boo xam ne ci lañu njëkk cité Ousmane Sonko nee nañu ñooñu mosuñoo verser caution waaye c'est pas le cas de Ousmane Sonko xam ngeen ni nag ci suñu ndaje bu mujj bi suñuy expert informatique wane na wane nañu njuuj njaaj bu amoon ci conseil constitutionnel ñu jàpp ne nag xëy na looloo tax tey ñu gis ne daanaka ñëpp ñoo xam ne conseil constitutionnel daf leen wóoluwaat pour ñu ñëw seetu seen parrainage daanaka ñëpp jàll nañu ba tax na amuñu benn sikki sàkka que ni candidature Bassirou Diomaye Faye évidemment dina jàll parce que en réalité am na ci loo xam ne conseil constitutionnel moo ko doon doxal ñu jàpp leen loxo ci poche ba ñoom ci seen bopp xam nañ ne jàpp nañ leen loxo ci poche moo tax nag tey jii ñu jéem a jubbanti liñ doon def ba tax na ni parrainage yi waroon demee daanaka noonu lay noonu la nekk di demee donc ñoo ngi xaar évidemment la validation de la candidature d'Ousmane Sonko mais nag ñëpp nañ d'accord ne y a des aberrations au niveau donc du conseil constitutionnel ndaxte léegi nii bu ma fi jógee président Habib Sy dina ñëw waxtaan ak askan wi am as tuut boo xam ne également dina ko wax communauté internationale ñu tuddee seen bopp les amis du Sénégal ndaxte li xew tey Sénégal ku ci waxul rek bu subaa bu dara xewee évidemment dañ lay jàppee complice de la situation donc Habib Sy dina ci ñëw xamal leen ne également que Ousmane Sonko mooy le seul candidat bi nga xam ne jot nañoo tijji enveloppe am te mandataire am fekkewul te loolu yoon da koo dax ngeen jàpp ni tam Sonko lii taxoon DGE joxu ko fiche de parrainage mu dem ñu jël chèque kees caisse de dépôt de consignation laata ñuy gis ay pour delloo ko chèque bi fekk xaalis bi jóge nag banque Ousmane Sonko dugg ci keesu senegal te joxuñu ko attestation ndekete yoo Mohamed Ben Oumar Sine Diop nekkul ci fichier bi te am na fiche de parrainage am na attestation ndekete yoo Mary Teuw Niane nekkul ci fichier bi waaye jox nañ ko fiche de parrainage jox nañ ko attestation au niveau de la CDC loolu yëpp Habib Sy dina ci ñëw ñiy topp ci moom na leen lim léegi dañ leen wax également xibaar bi nga xam ne askan wi yëpp xam na ko ndaxte commission électorale nationale autonome bi nga xam ne moo war a saytu élection yi ndeke li ñuy vérifier parrainage yëpp moom yorul fichier loolu également ay yëf yu doy waar lañu ba tax na dina poser question léegi ñiy ñëw ñoom dina ci dellusiwaat ñu wax ñu ndax li xew nii yëpp jëmee ci candidature Ousmane Sonko sañ nañoo wax ne crise préélectorale la wala du crise préélectorale fu may daanale rek mooy que ni na ñëpp xam ne candidature Ousmane Sonko tey jii lu koy dàq amul conseil constitutionnel bu dee dañuy saytu candidature am saytu dossier am liy dàq candidature Ousmane Sonko nekkul conseil constitutionnel xam fu ñu koy jëlee waaye nekkul conseil constitutionnel ba tax na. ñun ba fu ñuy wax ak yéen ñii jàpp nañ ne au Ousmane Sonko candidat la ndaxte Habib na dina si dellu soit léegi wax leen ban traitement la ñu réservé au dossier de Ousmane Sonko be tax na ñu jàpp ne bi léegi il reste dans la course et il candidat loolu moo tax nag mu woo sénégalais yi moo xam ñu nekk Sénégal ak ñu nekk bitim réew ci benn lever de fonds le dimanche 14 janvier 2024 pour que ñëpp participer ci jàppale ko mu organiser mu préparer sa campagne électorale pour que au soir du cinq février li sénégalais yëpp di xaar yàlla mun koo mun koo mun ñu koo may. donc euh, sans tarder naa leen wax rek ñan ñooy intervenir bu ma fi jógee président Habib Sy moom mooy ñëw tënkal ñu loo xam ne dafa jëmee ci candidature. président Ousmane Sonko pour waxal leen ne en réalité lépp loo xam ne conseil constitutionnel wax na ko ci teyu bakkan la ko teg waaye tegu ko ci yoon. te également mu lancer un appel euh, à la communauté internationale ku ci topp moom mooy suñu jigéen la présidente Yacine Fall bi nga xam ne ci coalition bi la bokk bu ci jógee le président docteur Mohamed Tete Diédhiou dina ci ñëw. après le docteur Mohamed Tete Diédhiou évidemment le capitaine Touré bi ñëpp xam dina ci wax tuuti loo xam ne moom mooy jàngatam ci mbir mi bu ko defee euh, ñu tëj ak euh, suñu jigéen euh, Maimouna Bousso boo xam ne dina ñëw également wax ci jàngatam ak leneen loo xam ne tukkee na ci donc ma bàyyi kaddu gi ak. le président Habib Sy di ci remercier également ñëpp ñoo xam ne fekkee nañu euh, point de presse bi am na ci ñoo xam ne dañoo nekk ci tukki moo tax gisoo gisoo leen fi ku ci mel ni l'honorable député Guy Marius dafa am mission boo xam ne da koy dox au niveau de la CEDEAO donc euh, sànq rek la jël départ pour dem mais di remercier surtout le candidat Cheikh euh, Tidiane Dieye bi nga xam ne bi yëfi tàmbaleeg léegi ñu nag moom ñoo ànd di ko féliciter ci euh, parrainage bi nga xam ne jàll na ko dès le premier tour ànd ceeg euh, le président Habib Sy euh, ñooñu mooy li may wax ni ce sont les candidats de la cause ndaxte xam ngeen ne am na ay candidats yoo xam ne candidat Ousmane Sonko yi la ñun également ñuy ànd ak Ousmane Sonko ñu am suñuy candidat ñaar lañu ñu woon ñaar yëpp jàll nañu donc 100 pour cent la am ci parrainage ñu ñaan yàlla également bu ñu eggee le 25 janvier. budul dul Ousmane Sonko mu nekk kenn ci ñoom koo xam ne moom mooy jàll ba léegi ñu xam ne donc dërëm bi génnul gaal donc euh, monsieur le président